ko ñaan ci àdduna bi yëpp ñoo ngi nuyu kilifa diine yi di nuyu le président Bassirou Diomaye Faye di nuyu son excellence le président Diomaye di nuyu le premier ministre Ousmane di nuyu patriote yëpp waaw xanaa di dellusiwaat rek di sant yàlla di ko dolli santaat moom yàlla ci dal bi nga xamante ni ñu ngi gis ni réew maa ngi koy dal ci coow coow li nga xamante ni yëkkati woon maanaam jugoon na ci affaire Cheikh Omar Diagne bi moo xam ci ñu jëm ci ñoom ñu taxawoon di ko jéem a garaawal di ko jéem a def dégg nga c'est-à-dire euh, catastrophe et gis nañ ni xam nañ ni loolu mënul jàll ci réew mi seen pexe boobu ñu ngi sant yàlla bi mu ko nasaxalee ndax seen pexe boobu nasax na donte dem nañ mara jéem nañ lépp pour pour mu tàkk pour dëkk bi tàkk wala ay bakkan faatu fii parce que loolu la ñu woote ñoom gis nga dégg neen leen am nañu si ñi nga xamante ne si ñoom woote nañ ne nañu rey Cheikh Omar Diagne nañu faat bakkanu Cheikh Omar Diagne bay sax jël aaya yàlla yi dégg nga di ko modifier dégg nga te aaya yi waxul loolu Cheikh Oumar Diagne defu fi lenn loo xamante ne lislaam da koy rey waaye gis nga ni ñoom jëm nañ jël nañu aaya yàlla yi di ko wëlbati dégg nga di ko commercer ngir am li nga xamante ni moom mooy seen i bëgg-bëgg ci politique bi ñuy def ndax ay politiciens la ñu. ñu ngi ci sant yàlla nag bi yàlla nasaxalee seen i pexe waaye di dellusiwaat di remercier patriotes yi di féliciter patriotes yi ci. compréhension bi ñu si am wala boog recul bi nga xamante ne def nañ ko ci ci manipulation boobu ñu ngi ciy remercier patriotes yi bu baax a baax di leen ci encouragé. amoon ah, nag dama part personnel dafa mel ni euh, dañu war a delloo buum ci.